tey daal damaa gis samay xarit daal ah waaw sëñ Gana réew mi yëpp lay ñaanal de guddal fan loo dund rek doyul barke Cheikhul Khadim macha allah maanaam uh-huh. kii la akay dëgg nga ni barki Serigne Bamba Mbacke maanaam man kii jaral na ma daw songu ko di jooy wala di raam moo ko jar nag mm-hmm. kii jaral na ma ko waaye ku dul ñii jaraloo ma loo Boucher loolu xam nañ ko maanaam man ñi bëgg Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ko waxtaanee mm-hmm. d'accord maanaam kii dañu koy tiitaroo di ko sagoo nañu ko ñaanal gudd fan ak wér mm-hmm. te lu mu wax dëgg la yokku ci wàññiwu ci barki barki Serigne Bamba Xaadimu te li mu Je suis avec mon bébé là, hein. Mon bébé Mado. Mado. man dama màggal si. man sëñ Tuubaa rek mu mën a déplacé. barke Sëriñ Ba maanaam tey daal màggal daal. ah may bëggee. lii da nga ciy profité fu ñuy waxtaanee Sëriñ Tuubaa yow ak ka koy waxtaan ak ña fa toog ak ñay lekk ak naan ak yool wi yëpp benn. barke Eh, Didi nga lii yaa ko indi bernde yi. Didi bernde yi yaa ko def ci màggal Aziza l'international symphonie Aziza l'homme de valeur Aziza yaa moom lii Aziza yaa monte lii symphonie moo def lii ci màggalu Sëñ Tuubaa yi non mais symphonie tàkk ba faaw kenn mënu koo téye restaurant yëpp laay fay restaurant yi fi ne ñëppay bàyyi